salaam salaam salaam ñu ngi leen ziyaare di leen nuyu waaw di leen ñëwaat fii di def benn vidéo bu yam si wàllu essuie glace moom lañ tuddee bale moo nekk nii euh, lii moo koy doxal euh, affaire bi moo koy doxal mais oto bu nekk nag ak ak ak essuie glace am donc munul nekk si oto bii bii oto Skoda la munul nekk ne si oto bii loolu la rek peut-être beneen oto loolu lay doon mais la plupart oto yu bëri fii la nekkee bu si kanam mu ngi nii soo buggee mu dox da ngay yëkkati si kaw boo yëkkatee parce que mi ngi nii ñu def fii lu muy gën a fort di gën a di lu muy gën a gën a yéeg si kaw di gën a fort euh, bu doon benn la nekkoon bu ma defee nii mu bale benn yoon mais su ma defee nii mu commencé bale bu gën a gaaw su fekkee day taw taw bi bëri boo defee nii mu gën a gaaw su ma defee nii fay ko bu doon si si kii laa bëgg ginnaaw laa bëgg mu bale surclasse su ginnaaw baa ngi ne de su ma bëggee mu bale si ginnaaw waaye bés fii bu dee Escoda la gis nga mooy def noonu bruit jub na léegi donc gis ngeen waaw léegi nag euh, oto bi xaaral ma fay ko parce que sama essuie-glace bi dama ko war a changer bi ci ginnaaw ok su ma bëggee oto bi nii bu tilimoon nii ma bëgg ko nettoyer ndox damay pompe ndox bi bu pompe ndox bi kii bi dama koy dama koy bës nii xoola su ma bësee nii su ma bàyyee ndox mi arrêté gis su ma bësee mu ñëw si man day day day dégager ndox pour si vitres yi bu dee si ginnaaw aussi la même so si ginnaaw aussi su ma su ma bësee bloqué day day day day ndox gis nga mi ngi noonu la donc bu dee si kanam nga bëgg ndox mi bala da ngay xëcc bës si yow taf si yow te mu dégager ndox mi euh, essuie-glace bi nettoyé su fekkee si ginnaaw aussi da ngay bës si da ngay bës affaire bi tamit nii bës ko jëmale ko si kii bi tableau de bord bi téye mu génne ndox mi essuie-glace bi balay balay balay affaire bi euh, moo tax xam naa ñu naan balay mais mooy essuie-glace léegi euh, pour wan ndox mi fu mu nekk si moteur bi xam ibbi sama moteur wan leen am fay oto bi su ma bëggee ibbi oto bi essuie-glace bi ndox mi foo koy remplir fii mooy essuie-glace bi gis nga luñ ko dessiné nii boo xoolee dessin bi moo nekk nii léegi gis nga kii bi day filtre waare ndox mi léegi boo boo si sottee ndox day dem si benn mbalka toog fa léegi ndox moomu nag ngay pompe moom mooy ñëw ndox mi moom ngay lañuy pompe pomper suñu bëggee nettoyer léegi nag maa ngi ko doon amal leer rek laa ko ndox xam nga fii dëkk yi dafay sedd comme ñun fii ñu nekk nii dafay sedd léegi bu seddee moo tax boo xool boo def fii ndox mi mooy ndoxu radiateur bi ndox bii ndox bi mooy ndoxu radiateur bi ndox mi dafa am ak produit yi ñu si defaale mais dañ koy jënd dañ koy jënd lan moo tax duñ ci def ndox normal même fii tam duñ ci def ndox normal parce que bu seddaay bi ñëwee bu fekkee fii dafa sedd oto bi fanaan ci biti day congelé mais bu fekkee ndox yi nag lu mu sedd sedd sedd même même moins moins moins cinq moins dix affaire yi du du congelé ndox mi du congelé donc lii mooy ndox mi lii mooy ndoxu radiateur bi lii mooy ndoxu euh, essuie-glace bi mais oto bu nekk nu muy mel mais bii moom yomb na a xàmmee bii ko oto yu bëri du changé nu muy mel tey gis ne max ak minimum bii moom mun nga xool logo bii nga bañ ko jaawaleeg bii lii mooy huile bi soo buggee xam sa huile fu mu toll ba xam huile bi jar na changé wala jar na dolli lii mooy huile bi donc koy yëkkati nettoyé ko dugalaat ko mesure bi nag di nga xam après ba xam dafa nekk si onder mesure bi si suufu suufu mesure normal bi bu fekkee am na oto yoo am comme même sama oto nii bu doon soxla naa huile mën na ma ko signaler mais nag nga di ko contrôler moo gën nga bañ mu xaar ba mu signaler lii mooy euh, huile frein à frein frein bi lii moom luñ koy changer bëriwut lii mooy batterie bi lii mooy moteur kii bu euh, ordinateur oto bi lii mooy ordinateur oto bi donc ma ibbi fi woon leen yi ma si xam du ma mécanicien nag dama leen won li ma si xam rek waaw fii daal xam naa ne li ma si xam ba xam lii mooy injecteurs yi trois injecteurs yi lii mooy baar bi baar bi jëm si injecteurs yi loolu moom mun naa leen ba si wax bu dee bu dee juin bu dee kii bi euh, pas juin de classe mais kii euh, xam nga dafa am moteur yoo xam ne à chaîne la am moteur yoo xam ne der la euh, lii mooy kii bi waaye dama fàtte nu mu tudd ay hmm. waaye lii nu mu tuddati bon rappelé wu ma ko mais kii la tudd ay dafa am yoo xam ne chaîne lay doon am yoo xam ne kawsu lay doon bu dee kawsu bi nag day dagg exemple lii ñu bind si cent vingt kilomètres mooy si cent vingt kilomètres lañ changé woon kii bi peut-être euh, suma ma ku koy seetaan comprendre li mu bëgg wax dina xam li ma bëgg wax su ko xamul na ma ko na ma ko na ma bu ma ko fàttalikoo naa ko bind si suufu vidéo bi waaw mais kuy jënd oto kilomètres yi bu bëree lii nga war a contrôler buñ ko changé woon vaut nga changé ko parce que mën na dem ba daggal boppam waaw am na oto yoo xam ne nag soxlawul changer parce que kii la nu mu tuddati euh, seen la sama xel nan la affaire bi nan la tuddati waaye euh, waaw laakaar naa loolu moo gën a am solo si moteur bi radiateur bee nekk nii mooy permettre oto bi bu bu tàngee mu mun a euh, joxe seddaay mu mun a génne ngelaw bu bu fekkee dafa sedd moom mooy tax tamit ndox mi euh, oto bi gën a génne génne tàngoor si biir oto bi waaw donc en général daal loolu laa leen doon bëgg a si wàllu essuie-glace laa naa si moteur bi tuuti waaw kon jaageen jëf maa ngi koy yamale fii tëj sama oto bi waaw en général daal loolu mooy bagage oto waaw yeneen yi si des mooy lamp yi expliqué woon naa ko fii la nekk tout ça mais bon du ma si defaat vidéo doon leen wax rek kon jaay ngeen jëf beneen yoon euh, incha allah waaw lamp yi euh, lamp yi xam nga nag maa ngi am na ku doon laaj xaw ma yi mais lamp yi waaw lamp yaa ngi nii exemple oto bi am na oto yoo xam ne automatique la mais lampe yi fii lañ koy tàkkee bii zéro mooy de position bii mooy feu de croisement waaw donc euh, ñaar yi ñooy feu de brouillard arrière feu de brouillard avant avant arrière waaw bu fekkee dama bëgg a taal kii bi feu kii bi nu mu tuddati faar euh, bi faar bi fii la nekk dama bësee nii rek faar bi tàkk na su tàkkee day bluffé dama fay oto moo tax mais exemple suma ma bëggee def code faar damay bës nii xoola code faar ak bokk waaw faar c'est juste pour euh, nuyu kenn la wala am koy communique ak si biti waaw kon jaa ngeen jëf ba beneen yoon dinaan wax aimer leen commenter